nee naa la sénégalais yi fi ñu leen teg weesu nañ fa wallahi azim weesu nañ fa ok léegi ñu ñu ñëw imam ci li nga xamante ne mooy vidéo bi ñu gis démb mu yëm ñu bëri mm-hmm. euh, man dama ne woon moom xam naa suñu ndaje bi la dinaa la ko njëkk laaj mm-hmm. euh, son ko dafa am ay affaire baatin wala gisaane <laughs> wala wala nu mu demee noonu vidéo démb bi euh, vidéo démb bi man jaaxaluma jaaxalu la déedéet lu tax jaaxaluma parce que xam naa Ousmane Sonko xam naa tam fi muy tibbe ay xalaatam muy alquranul karim jàng naa tam lu mel noonu jëkk moom muy génn di def loolu nit ñi nag euh, Ousmane Sonko dafa yëkkati seen niveau daf leen a raw di leen yóbbu foo xam ni àgguñu fa loolu moo tax ñuy jaaxle c'est normal ku mënta impressionner ce peuple mm-hmm. ku mënta inspirer ce peuple ni kii am na lu mu xam loo xamul ku mënut loolu waroo leen jiite. mënoo jiite ku mel ni ñoom tollook ñoom même niveau d'information même niveau stratégie niveau vision nga tollook ñoom ci loolu waroo jéem a taxaw ni da nga leen di jiite parce que jiite mooy jiitu rek d'abord. Mhm. lu tax man la jaaxal lu ma ci alxuraan. Mhm. Euh, damay da ngay jàng suratu baqara mhm. am na benn sëriñ nag bu ma jox message ni ma oustaz Taïr sa aaya yi ngay indi. mais noonu la ci la man ci lay xalaat. Mhm, mhm. Modap laa bokk doomu Daara Daara buñ ko dee alxuraan a tax. Mhm. donc ñun suñu argumentaire lépp lu àndut ak alxuraan su jógee ci Pastef dañ koy lànk wallahi alazim lu àndut ak alxuraan dañ koy bañ. yàlla daf ñoo woon njiit nu muy mel ci alxuraan suratu baqara benn xeet bu am problème ñu noggutu leen coloniser leen not leen yàqal leen seen njaboot seeni nangu seeni suuf. ñu ñëw ci benn yonant di joytu yàlla ni leen euh, ci làmmiñ yonant booba tànn naa leen njiit bu tudd taaluta du yonant de mhm. waaye njiit la tàmm tànn nañ ko ñoom ñu ni kii wërta nekk njiit parce que amul alal mhm. yàlla ni leen yàlla ni leen man maay jox nguur ku ma neex te maa ko tànn maa ko jox ñaar yu ngeen amul maa ko jox wa zaadahu bastatan fi l ilmi wal jism maa ko yokkal ci xam-xam lu ngeen amul maa ko xamal lu ngeen xamul kon premier critère u njiit pour relever un défi pour suqali am réew premier critère ba mooy mu avancer ci xalaat mu raw leen ci wàllu xalaat maanaam jiitu rek jiitu ci wàllu xalaat mm-hmm. ba fil ilmi wal jism jiitu tam ci wàllu jëmm yàlla ni maa def taaluta mu yor mm-hmm. jëmm joo xam ni dafa dëgër dafa engu endurant maa ko dolli ba nga xam ni fortifié ko ba nga xam ni mën naa dékku mën naa endurant maanaam mën naa dékku dëgër ci kanamu défi yi nga xam ni ñoo koy xaar parce que xeex ñaar la xel ak yaram mm-hmm. yàlla ni maa ko defal loolu léegi ñëwaguma ci Ousmane Sonko discours démb bi de mm-hmm. maa ngi ñëw ci tànn gi ko yàlla tànn moom muy njiit foofu laa koy foofu laa koy teg mais bu ma ñëwee ci discours bi yàlla wax ñu ni pour déglu bu baax li ma lay wax mm-hmm. yàlla def nañu pour won leen ni taaluuta mooy njiit li te ngeen ànd ak moom topp ko mooy buntu ngañaay li taaluuta dafa xëy wax leen lu nekk seen kanam te ak séegul ni leen yàlla dana leen nattu ñu ngi dem ay soldaar ànd général bi ne ci kanam mu ni leen ñi ngi nii di dox waaye ci biir dox bi danañu dox ba mar sonn ñun ñëpp waaye buñ maree ba sonn danañu daje ak dex gu sedd guy ci biir yoon wi ñuy jaar suñu dajee dox dex gu sedd guy googu maa ngi leen di wax ni àgg ñëwaguñ ca de mhm. ñëwaguñ ci mais suñ ca àggee li ngeen war a def lii la mooy yéen ñëpp na ngeen muñ bañ caa naan jéggi ko bu leen bu leen ci naan baal naa nag ñi nga xam mar wi da leen di bëgg rëy ba mënatuñ koo dékku ñu jël benn benn guuxu ndox pour sauver seen bakkan ñu def ko ñooñu moom mën naa am garaawut mhm. waaye ku ca naan ba màndi bokkatoo ci man fa lamma fasala taaluutu bil junuudi qaala inna allaha mubtaliikum bi nahar mhm. fa man shariba minhu fa laysa minni wa man lam yataamhu fa innahu minni illa man ixtarafa xarfatan bi yadihi fa sharibu minhu illa qalilan minhum li ma wax nii alxuraan la suratu baqara ba taalut ànde gaañ yi ak dëkk ba dugg ci yoon wi di dem war a daje ak jaaluuta pour xeex taaluta da leen yéen a ngi dem de waaye ak dex a ngi seen kanam gu sedd te dangeen a mar ku ci naan bokkoo ci man ku ci naanul nag ci man nga bokk waaye ku ci ba lu dul nag ko ku ci as benn as rek waaye ñu bari ci ñoom daanu naan ca xam nga xis sa boobu boo ko seetee li nga ciy njëkk a jàng mooy yàlla mi ngi ne njiit su mënta wax fa ñu jëm gisagul lu ñëw mënta gis mënta wax ni sunu xeex bii sama digg ak diw fii la jëm te maa ngi ko teg fii ak fii ak fii te fa mu ko teg du deñ ci ami information yu doy am yëg-yëg bi am analyse bi mais xam ki mi ki muy jëflenteel mhm. njiit su mënta def loolu du njiit loolu la def mhm. ci alxuraan yàlla indil ñu ko waaye itam bu mënul wax ñi mu àndal su defi bi ñëwee nan ngeen di def wane ay nattu nangam dana am mhm. baax na waaye wax ni bu nangam amee nii ngeen war a def. Mhm. loolu mooy dëgg dëgg dëgg melokaanu njiit. Mhm. loolu vraiment buñ ko de delloo ci alxuraan damay wax nit ñi delluwaat ci alxuraan xoolaat tafsir yi xool dëgg-dëgg lii ñuy wax lan la Ousmane Sonko ku yàlla may la waxewul baatin. mais kon lan la li mu def mbir mu wax li mu wax xam nga Sénégal dañoo gaaw ci baatin man Ousmane Sonko. Mhm. Euh, li ma wax ci moom man mën naa wax ni xam naa ko yow yow yow mën naa wax ko mais xam xamoo ci moom baatin boo non du question affaire bi du question xam nga nit ñi dañoo gaaw dugg ci benn domaine bu dul boobu mm-hmm, mm-hmm. yàlla wax naa la mm-hmm. taaluuta mii bu ñuy tudd yonent yi duñ ko ci boole mu ngi àndoon ak bi yonent moo ko doon fal kon bu dee ci wàllu baatin yonent ba moo am baatin waaye taaluuta mii njiit la lu mat ci alxuraan te yàlla nee na njiit lu mat nag ci alxuraan mooy kiy xam mën a jàngat lii ñëw mhm. xam-xam boobu xam-xamu jàngat la xam-xamu xam xam lu ñuy doxee waaye dolliku la nekk génie la mhm. ci mën a analyser nekk génie ci xam noonu la demee ci wàllu Afrique Ousmane Sonko boo ngeen toogoon di discuter ci wàllu Afrique lam lay wax da naan kii dafa mel ni dafa xam li li xew mais yàlla moo ko may loolu nañ ko ko nangul wallahu yuuti ko man yasha ci xissa bi yàlla daf ni mooy jox nguuram ku ko neex mhm. te ku mu jox nguur mooy dalay jox xam-xam bu mu joxul ña ca des loolu mooy li leer la ca des mooy projet bi muy wax nañ sant yàlla ñun waa Sénégal gis nga Afrique yépp seen nattu bi gën a rëy mooy langaamu ci ay personnes fàtte xamuñu sax parti yi xamuñu sax projet yi mm-hmm. nit ñi lañu xam moo tax parti bu daanu day dee bu nit ko daanoo daanoo dee. Mm-hmm. loolu dafa law ci Afrique yëpp ba ci entreprise yi looloo fa nekk. Mm-hmm. entreprise yi juddoo Afrique bu ko ko sanc dee deewee entreprise ba yàqu. Mm-hmm. boo demee Mercedes entreprise ya nekk ca tubaab ya Ford Pfizer entreprise yooyu nga xam ni tey ay ay ay ay ay ay ay ay bi yëpp la law boo ko xoolee ay siècle lay dund. dafa am lu ñuy tuddee te daawul maanaam dañuy jàllante. doom ak baay ak sët dañuy jàllalante ba joxante loolu pour mu mën a nekk mhm. ci projet dañuy dañuy impersonnaliser projet ba dëgg la njiit day am parce que mooy yëngal affaire bi mhm. mais njiit day am ci cadre projet loolu nag la Ousmane ko réussir te kenn mës ko réussir Afrique mhm. kenn mës ko réussir Afrique Lumumba mi ngi fii ana projet am Cheikh Anta Diop mi ngi fi woon ba mu mu faatoo ana projet mu Mamadou Dia mi ngi fi woon bi mu faat bi mu faatoo ana projet am nañ waxante dëgg mu jóg mas mu nañ waxante dëgg ñooñu ñëpp tey bi ñu demee dañ leen a fàtte sax mhm. ay histoire la ñu doon mais waxatuñu seen projet Ousmane Sonko nag jàngale na parce que loolu jàng xelu alxuraan la mhm. gis nga loolu mhm. dégginu alxuraan la moom li mu dolle ko ci kaw gaañ yi li ci ëpp doole mooy alxuraan te daana ko daana ko kafe ni alxuraan xajul ci bopp golo dëgg la alxuraan <laughs> waxuma la bopp golo waaye nit ku ñàkk fayda sax nit ku amul yitte du settantal du toog di xalaat di xool li yàlla wax lan la di ci sonn di dem ci nit ñi di góor góorlu nit ku deful loolu mënul comprendre alxuraan mm-hmm. euh, beneen kii bi nga baal ma mm-hmm. moom laay daane ne du ñu waxee alxuraan dañuy wax sunna ñun jullit yi dañoo gëm alxuraan gëm sunna sunna mm-hmm. mooy doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak i saxaabaam saxaabaam yooyee dañ leen di nit ca na yonent bi doon doxee moo tax ñu boole leen ci dama lay nettali benn histoire bu mi bu niroog bii fi nekk xare bu ñuy wax Yarmouk ci xare yi gën a métti ci lislaam la mi ngi tàmbali jamono Abu Bakar bi Omar ibn al ñëwee nekk xalifa radiallahu taala anhum ajmain ñëw nekk xalifa moom Omar dafa folli Xaalid ibnul Walid nga xam ni général la boo xam ni mësul am échec du ci bi mu nekkee ci ceddo gi bi di xeex ak jullit yi saa yu jullit ñi amee lu leen naqari ci ci waa Quraysh Xaalid moo leen ko tegoon mm-hmm. keroog Badar moo leen ko teg moo leen ko teg ay barab yu baree baree bari ndax yàlla may gum ko may ci wàllu tactique de mhm. bi mu duggee ci lislaam yonent bi da ko tuddee gayndeeg yàlla gi wala jaasi yàlla ji ndax njàmbaar gi mu amoon mais bi Omar ibnul Xataab ñëwee da koo folli fal Abu Ubayda Amir ibnul Jarraax jox ko lettre mu jóge Médine dabi ji soldaar si ci Yarmouk ni ko boo demee ca saasa na Xaalid folleeku nga ji nekk général mu topp sa gannaaw Abu Obayda ñëw ànd ak mbooloom en tant que général mm-hmm. nouvellement élu euh, comme gaa ñu leen ko def nommé moom mu ñëw ba ci ñëw ba ci tollu xale bi xam nga lu mu def mm-hmm. bi mu ñëwee dafa xool situation xare bi gis ni fii bu fi waxee waxi folleeku coow day am werante day am parce que ñii bëgg nañu xaalit bëgg goo xam ni kolewu nañ ci personnalité mooy comme li jeunes yi mel ci mm-hmm. ci Sonko bëgg nañ ko bëgg goo xam ni topp nañ ko topp goo xam ni ku ñëw di leen wax ni xalifa bi folli na euh, xaalit coow dana am te bu coow amee noon bi danañu gañe noon bi dañuy gañe mm-hmm. bis bu ñu werantee suñu biir ñaari général am ñu naan kii ñu naan kii ñuy ànd fi ñuy àndu fële noon bi gañe ñu kon nan la Abu Ubayda def dama lay jàngal ñun li ñu gëm mm-hmm. ba tax ñu mel noonu li Ousmane Sonko sukkandiku ba wax lii moo tax man la man jaaxaluma parce que lii jàng na ko. Abu Obayda dafa nëbb lettre bi ñëw jël armam nekk soldaar ànd ak xaalit xeex di xeex ba ñu gañee mu ñëw renforcer coow loolu ñuy coow xaalit ak bëgg gi ñu ko bëgg mu ñëw renforcer ko. ñépp jàpp ni xalifa bi kii jóge ci xalifa bi kii la gën a renforcer. Mhm. ñu ànd ak Khalid ba gañe ba jàmm am ñu toog nag seen seen jàmm aboobee dañu bëcc lettre bi ni ko Khalid Omar ibnul Xataab amirul muminina folli woon na la mu ne ko kañ la ma folli mu ko bi may ñëw moom ma indaale naa lettre bi ah yow li nga def tu noonu amirul muminina kàddoom waaw la sant mu ne ko d'accord waaye bu ma ñëwoon wax la ni folli na la ñii ci soldaar yi mënuñoo dégg nga follee ko ci biir xare bi mm-hmm. te bëgg nañ la bëgg goo xam boo follee koo coow dana am te nag ñu gañe moo ëpp doole ma falu moo jiitu téyel baat boobu ñu mm-hmm. gañe moo ëpp doole ma falu moo ëpp doole ma falu man moo ma gënalit ma nekk général man sëriñ bi lii la Ousmane ko jàng ba wax lii mu wax kon nag Khalid ni ko manit nangul naa la seetal ci liggéey bi ma war a liggéey ci skii bi lu ma man loo jàpp ne mën naa ko nga sant ma ko ma def ko ci xol bu sedd guy topp sa gannaaw léegi nga ko sëñ bi ñooñu boo leen jàngee waxuma jàngantu gaa ñi gaa ñi falaa falaa yi di woote ay yenn affaires yi mais boo leen jàngee njàngeen bu xóot seen projet politique seen gisin nga dem ci terrain bi ñuy liggéeyee nga xool seeni acte parce que yonentu salaa sallam moo leen yar soo leen jàngee boo duggee ci projet da ngay xam li nga ci dugg lan la man dama lay wax man Tahirou Fall ci ñu gën a doyee de la ko waaye bi ma duggee ci Pastef bi may dugg buntu jàppale Ousmane ko laa duggee waaye bi ma duggee tëju naa ay weer daanaka dugg xalwa di jàngat projet bi point par point. Hmm? parce que du ma du ma dugg ci loo xam ni oo ma ci conviction. oo ma ci conviction ma ciy ànd du ma ko def mukk ci àddina su ma ci amee conviction nag su ma sañoon Ousmane Sonko mooy dem. ok waaye nag bu demul. bu demul